Euh, euh, doyen Ablaye dafa am lu solo lu Diorine Diassé di wax parce que yàgg nañoo gis ay projet ah. Hmm. ak référentiel. Hmm. littérature bi day rafet day nice ñëpp dañuy dégg di rafet di kontaan hmm. mais pour jëmmal ko. des fois day am problème te sooy xool am na ay similitudes par rapport ak référentiel bu ñuy wan ak ak ak PSE. mais fu ñuy taxaw mooy développement endogène bi nga xam ne wax nañ ko. loolu foog nga secteur privé national bu fort boo xam ne leen di jàppale bu baax a baax tey ñoom wax nañ seen inquiétude ndax loolu tam day tax. ñu dagg la cordon ombilical bi nga xam moom la ñu amoon ak yeneen euh, gars yi nga xam ne ñoo nekkoon à l'extérieur daal dimbali Sénégal. non mënuñu ko. Euh, mm-hmm. c'est impossible de ñu couper le cordon ombilical. Mm-hmm. parce que le Sénégal a des partenaires euh, techniques et financiers. Mm-hmm. il a des partenaires bilatéraux comme des partenaires multilatéraux. donc de ce point de vue là dañuy xool kañ. Euh, la ñuy jëlee si ñoom bañ njariñ lay am si suñu économie ak bañ njeexital lay am suñu économie hmm. nañu doon jëlee yenn marché yi di ko exécuter comme su fekkoon ne nous étions sous le coup d'un diktat hmm. économique que l'on nous imposait foofu loolu kañ lañu war a mën a réorienter hmm. parce que on ne peut pas comprendre par exemple que ñu war a ñëw comme comme dañu imposer benn projet bu baax la projet bu innovant la parce que am na njariñ mais est-ce qu'on nous a imposé près de mille milliards pour trente je dis ban ban ban rentabilité économique la mën a am à à court terme. Mm. à court moyen mu mënu ko mënu nekk comp mm. euh, bu ñuy tabax euh, li nga xam ni euh, les autoponts là pourquoi ñun ñu tëb suñu jéggaane suñuy entreprise mm. te ñu am expertise bi dem jox ko matière essence matière essence sous-traité ak ay entreprise chinoise entreprise chinoise yooyu wëlbati ko sous-traité ak ay entreprise sénégalaise compa nu ñu problème. Hmm. est-ce que ñun dañoo forcer euh, président Macky pour mu marché lampadaire solaire à fond roche. est-ce que du nekk hmm. clause yi tamit non moom laa ah. à fond roche. Hmm. donc tout est volonté. en la Chine ne se pas euh, euh, mieux que le Sénégal. la Corée du Sud il pareil. tu vois donc comment se fait-il que ces pays-là soient devenus des pays. développé ba ñuy ne aujourd'hui Chine mooy première puissance économique ba pare di mbëkkante ak ki nga xamul États-Unis d'Amérique donc ça veut dire que kon xëy nañu liggéey parce que tey jii la révolution euh, culturelle de Mao euh, boo ko boo ko boo ko jàngatee bu baax da xam fan la jaar ak Deng Xiaoping bu muy yegg si lan la jël comme levier topp li nga xam ne mooy yoon bi Mao tracé waaye andi ay révolution sur le plan de la perception économique liée aux aux chaînes de valeur pour mën a développer li nga xam mooy Chine mais Corée du Sud ba ñuy tàmbali ay menace lañ doon def yaa ngi mm. mais bu ñu ñëwee ba ñi nga xam xam-xam ñëw lëkkalu ak ñoom mais ba ñu pare dañ leen si biti parce que nangu nañu parce que ñun chez nous c'est chez nous qu'on parle de transfert de technologie. Mm. man góobu ko la technologie elle ne se transfère pas elle s'arrache man loolu laa gëm c'est ma conviction. Mm. parce que 1960 ba tey jëriñ gars yaa ngi fi. ñuy wax ay transfert de technologie mais jusqu'à quand il faut quand même que ñu nangu ko ñun mais ñun dans les années soixante dix euh, Sénégal da doon monté oto bu doon mhm. fii ko doon monté fa lañ doon fi lañ doon defaree mhm. mais comment ça veut dire que tey mënatuñu am loolu donc tout est volontaire donc il est bel bien possible su fekkee ne volonté baa ngi fi gouvernance bi ni ñu koy waxee souveraineté waaye tamit réforme bu jëm si wàllu institution yi da koy gunge mhm. réforme administration bi da koy gunge pour une phase d' accélération liée au processus de dématérialisation de l' administration sénégalaise de bout en bout loolu moo koy sutaana xeex corruption daf see bokk xeex prévarication des ressources daf see bokk si assainissement des finances publiques de see bokk si li nga xam moom moo di soupçon d' enrichissement illicite et de détournement de deniers publics daf see donc loolu bu ñu koy xeexee ba nekk si li nga xam mooy yoonu bonne gouvernance mhm. comme ñoom ni ñu ko waxee nekk véritablement un modèle en Afrique par rapport véritablement à la bonne gouvernance mais c'est bel et bien possible parce que gis nga li wax programme boo gis dañ sax mën a ñàkk bañ a programme mais bu ñëwee tabax dëkk boo xam ne en réalité dañuy dëkk bi mi ngi avancé mais Singapour c'est une cité état mhm. Singapour c'est une cité état mais est-ce que tu as vu comment Singapour s'est développé et en un temps record c'était une colonie britannique mais tey regarde Singapour te amul ressource. mais capital humain bi xam nga dañ ko ñëwaat na si si référentiel bi mu ngi woon fële aussi te ñu gis nañu ne euh, vraiment échoué nañ si côté boobu noonu lan mooy jafe-jafe yi comme lu Clédor wax indice de développement humain bi lañuy lañuy lañuy la ñuy fàtte wala lan la. non xam nga euh, il est le e wax na lu mm-hmm. trop misé sur le capital humain. fii quand même il faut que ces autorités-là misent directement sur le capital humain mm. en mettant en avant véritablement des valeurs sûres mm. mais en s'appuyant sur tous les liens sociaux pour mën a tabax lépp li nga xam ni moo jëm si pôle régional parce que Clédor il a raison mm. mais tout est concentré à Dakar et ses environs il faut quand même que l'on aille vers une déconcentration vers une décentralisation pour mën a jëm si li nga xam ne mooy créer les conditions même d'un bu ñu développé. xëy na yow créer les conditions d'un exode d'un exode mm-hmm. mais c'est bel et bien possible. Mm-hmm. parce que tey jii il est clair que les régions du Sénégal ont été délaissées hein par mm-hmm. les régimes qui qui ont traversé fii da ngay ñëw tegal ay programme non branché nañ leen forage tàccu nañu ñu filmer leen nangam nangam mais écoute. on a on n'a jamais cessé d'abrutir les populations sénégalaises. ni ñu branché courant booy mu nekk événement je crois bien que war nañu to dépasser niveau boo xam ne mais accès à l'électricité day nekk un événement pour des populations qui de leur vie n'ont jamais vu de courant loolu mooy loolu mooy problème donc bu ñu créer les pistes de production yaa ngi gis tabax li nga xam ne mooy créer les conditions du désenclavement de plusieurs localités jëm si li nga xam ne mooy créer les conditions de création d'une d'unité une industrielle propre à chaque région selon li nga xam ne moo fay moo fay moo fay ëpp doole si wàllu écoute mun na nekk un bon point de départ je dis encore une fois tout est volonté mm-hmm. tout est volonté tey ku am volonté di nga tabax sa dëkk mm-hmm. gis nga président ñëw na si pouvoir amul jàngul so jàngam sarawul diplôme yi suñu gars am fi fonctionnaire yi am ko mais def résultat yoo xam ne adduna bi ñu ko koy je pense que loolu encore une fois il faut ñu nekk si dinaan bi boobu maintenant nag lan moo ñu suy dimbali mooy que ni Sénégal trois cent soixante cinq jours on est dans la politique politicienne. Mhm. xam nga xam nga lu lu lu magum nday di wax picc ñobelet mhm. pour ne pas dire l'oiseau pie mhm. moo fi bari les gens en réalité certains nous pompent l'air il faut il faut dire les mots certains nous pompent l'air waja jaj waja le débat programmatique est là qu'est-ce que tu apportes boo contredire lan ngay proposer xëy na gars yi dégg ko ne ah kii li mu wax ne moo gën a pertinent lu nekk ci référentiel bi mais soo duñu jël loolu boole ko sumb ko xool lu ñu togg ak lu muy jur mais les gens sont là pour déconstruire mais on ne peut pas continuer de déconstruire lépp li nga xam ne dañ ko teg pour mën a tabax suñu dëkk. jërëjëf des fois des fois ça tu te demandes eh, c'est du patriotisme. Mhm. ou un intérêt purement personnel et clanique. day toll jamono joo xam ne nag gis nga quand le Sénégal appelle. foo mun ci bokk malgré les adversités malgré les différences da nga war a xam ne nag attends dëkk bee woote quoi dama see war a bokk. Hmm. da nga war a yow nekk acteur économique même si tu es opposant nguur warula xeex. tu es un développeur tu es tu es tu es tu es tu es tu es tu chef capitaine d'industrie tu es opposant nguur da la war a jàppale pour industrie bi dox pas politique bi ngay def pour industrie bi nga nekk dox hmm. c'est ça en fait. ki qui fondent les valeurs de, des pays développés. Mm -hmm. Tu penses qu'aujourd'hui, un Trump, s'il ne gagne pas présidentielle, Kamala Harris peut gagner. Il faut que Kamala Harris crée les conditions pour sourire économique, et euh, système économique Trump. Non, non. Du tout. Perception, nous n'avons pas d'essai. Jërëjëf, ñu ngi koy wax sànq ne si bi mi nga xam ne mooy développement endogène bi mm. euh, dañu wax ne par exemple budget bi 60 pour cent yi bëgg nañ di ko jëlee si ñi nga xam ne moo di Sénégal secteur privé yeneen yi. Mm. mais mais mais nan la ñuy def ba créer ay champion yoo xam ne tey war nañu mën a dimbalee Sénégal si si si loolu ak ressources yi nga xam ne aussi am nañ ko. waa loolu c'est une très très intéressante question. Mm. Euh, mboobu wax na ko sànq. Euh, ñoom tamit wax nañ ko nguur gi. mais dañu bëgg a sukkandiku. ci suñu ay ressources internes. Mm-hmm. pour mobiliser li ñu soxla pour financer seen ay projets de développement donc